aalamul arwaax la yàlla tànnoon yennat ci ay jaamam dénk leen ay sekkere ak i mbóot seen farlu ak seen yitte ju kawe firndeel ko fii ci àddina kenn ci tànnee fi sunu borom yooyu nag laa leen bëgg a xamal tey muy sëriñ xasan mbàkke nasrullah di ko boole xam-xam ak ragal yàlla ak jëfu yiwu ba am ijaaba di xetti li mbindee fii ci lépp lu aju ci wàllu ñaan muy kaaraange bayre wërsëg ubbeeku rataxal ay diggante di dindi cat wala bépp xeetu liggéey bu bon bu ne ci doomu aadama sëriñ xasan mbàkke nasrullah andil leen jaaro bu yéeme boo xam ne ku ko am nanga sant yàlla te xam ne am nga tawfiq ak xaas ne day dox ci bayre ak wërsëg ak kaaraange gu mat sëkk naka noonu ndomba kiimaan goo xam ne képp kuy yëngu ci mbooloo te bëgg mucc ci seeni lor wala nga nekk ci palaas bëgg faa xejj am fa daraja di yokk ci waxtu wu nekk fexeel ba am ndomba géey kon yéen ñi féete ndakaaru man ngeen a fekk borom nasrullahi di sëriñ xasan mbàkke ca jàmm gën si kaap mbaaw talimaam jaara bu dee tuubaa mbàkke xewar péncum maam moor jaara boroom saam wala ngeen woo ko ci numéro yii 77 614 43 07 77 614 43 07 wala 76 678 65 44 alors voilà Moustapha daanaka sorewul li te mooy euh, calcul yi ñu doon def depuis dimanche ak léegi. Mhm. résultat yi euh, ni mu tëddee euh, globalement mun nañu Benno Bokk Yaakaar quatre-vingt-deux députés la am. mu am majoritaire bi. Mhm. coalition Yewwi Askan Wi daal di am cinquante-six députés. 39 si liste majoritaire bi 17 si liste euh, proportionnelle bi euh, wàllu Sénégal am 24 euh, députés 16 yi si liste majoritaire 8 si liste proportionnelle bokk gis-gis am benn député MPR serviteur am benn député naat Aar Sénégal am benn député Naatange ak bunt bi amuñu député loolu mooy national Assemblée nationale 82 députés pour Benno Bokk Yaakaar alors que la majorité c'est au minimum 83. Hmm, ok mën nga maa kaala daanaka <laughs> kaa am na. <laughs> non mais parce que euh, sànq bi ñuy euh, bi ñuy jël antenne. Mhm. waxoon naa ne la li ma njort muy njort bu bu kawe lool mooy dinañ dem ci assemble boo xam ne kenn du am majorité. Mhm. loolu laa lay wax léegi. waxoon naa la également que ni bu ñu bu ñu compter ex suffrage balaa bu exprimé yi. ñu mhm. nekk ku nekk ki la votel da nga gis ne camp président Macky Sall. moo gën a néewle soo ko comparé ak camp opposition bi. ça veut dire que tey sociologiquement. Benno Bokk Yaakaar dafa minoritaire ci réew mi. et chiffres yi ñoo koy wax Moustapha. yi ñoo koy wax c'est pas moi qui parle. Mm. Euh, parce que chiffres yi ñoo ne boo jëlee Benno Bokk Yaakaar chiffres yi ñu joxe ñoom la laa wax ah. et chiffres yooyu mën nañ cee waxaat lu baree bari parce que ab du pays euh, dañoo buure urne yeeg yu demee noonu mais mais ça c'est un autre débat le mooy. soo jëlee benn bokk yaakaar ñi ngi récolté cinq un million cinq cent dix huit mille cent trente sept suffrage suffrage ñoo ñu leen voteel nga jël yeewi askan yi mu ne ci un million soixante onze mille cent trente neuf soo ko boolee ak euh, wàllu Sénégal mooy l' intercoalition ñoom ñi ngi am euh, quatre cent soixante onze mille cinq cent dix mm-hmm. ñooñu déjà boo yemee foofu rek ñoo ëppale nañ Benno Bokk Yaakaar ñi leen voteel je bien ñi leen voteel mm-hmm. ëppale nañ Benno Bokk Yaakaar ñi leen voteel ça veut dire quoi que ni yeewi wàllu réunis ñoo ëpp euh, ay vote ay électeurs ay électeurs ci Sénégal que Benno Bokk Yaakaar maintenant bu fekkee da nga ci dolli les serviteurs dolli ci aar Sénégal dolli ci bokk gis-gis ci ñi nga xam dama jàpp ne ñoom dañoo jàpp ne waxuma yeneen liste yi ah, de liste am député da nga gis ne ñoom opposition wu senegal ñoo ëpp fuuf ay vote ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar muy benn moo tax ma la doon wax ne euh, Benno Bokk Yaakaar dafa minoritaire ci réew mi mm-hmm. ñaareel ba. waxoon naa la sànq ne la dama ragal ñu jëm ci assemblée boo xam ne kenn du am majorité et lii nga xam ne moom la président wu commission bi wax moo di ne Benno Bokk Yaakaar moo ëppalee député ci assemblée nationale 82 la am. di fàttali ne assemblée national bi 165 député la. pour nga am fa majorité il faut nga am 83. député te comme 82 députés la ñu am ça veut dire que ni amuñu majorité ci assemblée national majorité mooy soo tegee woon benn nii. teg camp wu ñi farut ak bennoo ñëpp bennoo moo leen war a ëppale te loolu amul soo jëlee camp wu ñi farut ak bennoo soo boolee l'intercoalition wallu ak yeewi ñi ngi war a toll ci ñaata 80. 80 député député boo leen boolee léegi su fekkee ne waa serviteur. Mhm. waa aar Sénégal. waa bokk gis-gis ñoom ñëpp dañu jàpp ne ñoom ba léegi opposition lañ bokk et su ñu demee assemblée ci opposition la bokk dangay jàpp kon ne assemblée nationale du Sénégal bi opposition wu Sénégal moo fa majoritaire d'autres questions se posent maintenant. effectivement bi ci njëkk. mooy su ma xoolee baax liste yi am na ñu toujours wee yeewi bi mooy ñuy woowee les suppléants ñi nga jëm assemblée te xamuñu baaxam xam parti ya leen fa investir est-ce que ñi ngi ci biir yeewi ba léegi. c'est une question te si c'est le cas lu ñu war a régler la beneen bi mooy tey yi aar Sénégal les serviteurs bokk gis-gis dañu nekk ci face à un défi. Mhm. défi bi mooy lan. mooy bi ñu nekkee ci élection yi ci biir campagne bi la Ousmane ko wax ne bu dul wàllu ak yeewi ñoom ñëpp nekkuñu opposition ñun ñooy opposition ñoom ñëpp ñu mer mhm. ba fut euh, waaw aar Sénégal def benn communiqué saaga Ousmane Sonko mu tooy Pape Diop wax euh, euh, les serviteurs wax ñëpp wax ne ñoom opposition lañu bokk mhm. clamé ko partout maintenant ce qui va se passer que dès que ñu installer l'assemblée dinañ voter pour fal président bi tey Benno Bokk Yaakaar voix yi mu am mënul fal président assemblée. moom kese mënu ko fal. non yi mu am mënul fal président assemblée donc il va falloir que mu négocier soit pour xëcc ci waa wàllu. wala pour xëcc ci waa yeewi wala pour xëcc ci serviteur wala aar wala bokk gis-gis. sinon mënul fal président assemblée yeewi askan wi wàllu regroupé ñoom ñaar mënuñu fal président assemblée. il faut ñu négocier ak serviteur Aar Sénégal bokk gis-gis te négociation boobu nag dafa am solo parce que maa ngi wax sànq ne euh, su ma doon su ma nekkoon ci ay ñoom Pape Djibril Fall rek ñoom euh, bokk gis-gis je vais négocier très cher enfin on peut être d'accord on peut ne pas d'accord avec ça parce que soo jiitalee intérêt wu Sénégal man nga ne non comme opposition la man mais nag euh, ci assemblée lañ jëm mhm. boo xam ne mook maire yi ñoo yem assemblée dafa am bureau mhm. bureau bi am lu ñu fay séddale am ay am ay postes yoo xam ne moom lañ fay joxe tey jii boo boo dee aar wala ngay serviteur wala ngay bokk gis-gis sa vote ci assemblée yaa ko moom. man nga ne man kat opposition laa bokk mais dañuy fal président assemblée Moustapha Diop ak Assane ñooy xëccoo man nga ne Moustapha Diop moo a doy pour nekk président assemblée wala Assane moo a doy Assane moomu il faut da ngay wax ak moom wala Assane moom day ñëw wax ak yow campagne la. surtout que ren vote yooyu dafa cher. dafa cher campagne la comme ni ñuy campagner sénégalais cest que tey bu ñu nee waa yeewe ak waa wallu ànd nañ benn group wu nuñ ko mënti tuddee ñoo xam ne léegi ñun daal dañoo bëgg na fi jàlloo ñu koy féliciter au passage dégg naa nekk na député moom lañ bëgg mu nekk présidente assemblée Nafi Diallo moom day battre campagne. parce que bu fekkoon ne temps wu bee ñu génn la muy cent vingt cinq députés pour Benno Bokk Yaakaar su président Macky Sall taxawee ne Moustapha Niass laa bëgg mu nekk président assemblée da koy nekk. du am coow parce que waa camp bi dañ koy votel mm-hmm. mais tey su président Macky Sall taxawee ne man Aminata Touré laa bëgg mu nekk présidente assemblée su ngeen demee il faut président Macky Sall négocier. ak ak waa yee ak waa euh, serviteur aar wala bokk gis-gis wala même peut-être yeewi wala wàllu pour que Aminata Touré nekk président assemblée mais Benno Bokk Yaakaar cundum. yaakaaruma <laughs> mënul nekk sax mënul élire Aminata Touré président assemblée mënul érir Amadou Ba président assemblée mënul érir keneen ak l'excellent acte bi sénégalais yi hmm. posé dimanche mooy yóbbu classe politique bi ci benn assemblée boo xam ne par force di ngeen waxtaan sinon dara du dem. Euh, dara du dem ndaxte Moustapha euh, bi ñuy tëj sànq laataa ñoo jox euh, kàddu gi Sidi Ali Ba bu njiital. Hmm. commission bi ngir mu joxe mbir mi ñu ngi doon wax ci loi bi assemblée nationale mujj voté hmm. maanaam treizième législature bi. daanaka loi la boo xamante ne débat amul. coow amul waxtaan amul lañ ko indi voté. ko yóbbuwaat OGM bi tiital ñëpp. donc muy mbir boo xamante ne daanaka ak cette assemblée nationale bi ñu jëm ni euh, bu fekkee configuration bi ni mu demee ni noonu la continuer loolu du mën a am déjà euh, Yewwi Wàllu si liñ mën a jàpp. ba mhm. tey intercoalition la. dañuy dugg ak assemblée nationale ak seen quatre vingt députés. jànno quatre vingt deux députés. Mhm. bu euh, bu Bokk Yaakaar. Mhm. à côté ces trois députés là. vont être des des des faiseurs de comme niñ ko ko mën a waxee noonu. donc foofu la. qualité wu votu sénégalais yi ci euh, ci législative bi amee solo pour man. ndaxte wane dañoo séddale séddale boo xamante ni pouvoir bu nekk day am pouvoir bu koy bu koy arrêté. mais mais c'est ça c'est-à-dire que tey euh, ñu ngi doon wax cohabitation ñu ne cohabitation mënta am euh, je sais pas mais li am solo mooy président Macky tey nekk na ci position boo xam ne faaw mu waxtaan ak ay opposants parce que amatul majorité bu ko mën a permettre mu mel ne ku ne sa piscine côté bu la neex bu la neex bu la neex fee. est-ce que loolu mooy li gën ci réew mi. mais loolu mooy li gën ci mi. c'est cest à loolu dafay dafay comment est-ce qu'on dafay tester la capacité de hommes politique sénégalais à passer ci beneen étape beneen étape mooy lan mooy def na ñaari alternance Assane. Mhm. ñu ne Sénégal. championnat ci art dance parce que def na ko defete ko miin nañ ko euh, li ñu sonaloon Sénégal yëpp doon ko jooy mooy am ay assemblée nationale yoo xam ne koo wax mu ne man député président la lu président bëgg laay laay def assemblée bi nekk fa député président amul njëriñ pourquoi parce que boo fa nekkee député président aussi ngeen di euh, juróom-ñett fukk ak ñaar yéen ñëpp ngeen di député président président indi fa loi boo xam ne il faut que majorité bu voté ko yéen cundum juróom-ñett fukk ak ñaar mën leen ko voté moo tax ñoom Pape Diop. aar Sénégal les serviteurs euh, sénégalais yi di leen xulli seen bët bu baax di leen xool. Mhm. di surveiller seen moindre geste seen moindre geste. parce que ñooy déterminer parce que ils ont battu campagne en disant aux sénégalais que ne ñun opposition lañ bokk. te mhm. sénégalais voté pour ñoom parce que dañoo gëm ne opposition lañ bokk il ne faudrait pas qu'il leur du Bamba fal mhm. qu'il leur fasse du Bamba fal c'est-à-dire que dem assemblée ñetti fan ñaari fan ñett nga dem fàtte ne. ñi la voté loon dañu jàppoon ne opposition nga bokk. Mhm. dem ne jébbalu ci. Euh, kii waaw mais nag on est en politique. Mhm. te la classe politique Sénégal miinal nañ ñu. di négocier yenn teraanga yi euh, pour jot ci yenn kii alors Thierno Alassane Sall également c' est un cas intéressant mm-hmm. parce que su fekkee ne Thierno Alassane Sall tey joxul post bi keneen bu ko neexee démissionné ki topp ci moom dem assemblée mais su fekkee moom moo dem assemblée c' est un ancien de l'APR qui a mené un farouche combat contre le régime de Macky Sall parce que moom dafa gëm ne euh, il a écrit li gën a li gën a jafe ci homme politique sénégalais moom ak Ousmane Sonko laa ko fi miin peut ci classe politique bi ñu nekk ak Macky Sall qui a livre mooy di ne bind wax ses position farouchement opposées au régime de Macky Sall est-ce que tey day dem assemblée nationale. Euh, di di flirter ak benn bokk yaakaar je le pense pas sincèrement je le pense pas mais comme j'ai dit tout avant waa ji di wax faut jamais insulter l'avenir nañ bàyyi xool ba xam assemblée bu ko installé dans les jours ou semaines à venir dinañ gis leneen loo xam ne waa ji wax na ko également mooy y eu des observations des. contestation yoo xam ne ñoom consigné nañ ko dañ koy jox euh, le conseil constitutionnel après mu tranché mais mais li conseil constitutionnel miinal sénégalais yi mooy liy génn fii. yaakaaruma ne yaakaaruma ñu soppi ko sincèrement. Euh, ñu reste ci benn cas pour terminer muy le cas de de Pape Diop. Moustapha euh, on a vu que bi Ousmane Sonko yëkkatee kàddu yooyu di wax ni opposition bi ñaari liste rek la muy Yewwi ak Wallu. moom bokk na ci ñi nga xamante ni nañ avant ñoo dem ci élection a vu mooy Gloria. voilà est-ce que loolu mënul topp ba bañ dugg si biir assemblée nationale bi. Ah, al Assane assemblée bi il faut s'attendre à tout. à tout mais dama ne. Euh, politique nag am na un minimum euh, d'éthique. d'éthique et de dignité. Euh, te président Macky Sall xam na loolu. Mm-hmm. parce que bari na fu ñu ko sanctionné ci réew mi sanctionné wuñ ko parce que dafa liggéeyul réew mi sanctionné wuñ ko parce que dafa dañ ko sanctionné parce que li mu woowoon Sénégalais yi mooy une gestion sobre et vertueuse ku ne vertu loolu lañ gisul ci moom léegi su fekkee ne sénégalais dañoo voté exprimé wu ne ko ah yow kat président Macky sàll Sall ngaari baax nga lool mais ñun dañoo décidé ñun Sénégal ne mënuñu la jox majorité ñun Sénégal dañoo décidé ne ko mënuñu la jox majorité léegi li ñu décidé mooy opposition bi nga xam ne ñoom ñoo ne ànduñook yow ñoom lañ jox majorité muy wallu yeewi serviteur aar bokk gis-gis. président Macky Sall l'élégance voudrait que mu bañ a xalaat xëcc ci ñi def ci camp mën na ko mais su ko defee ragal naa la ñu sanctionné waat ko enfin de toute façon moom.